xam ne rek mën naa favoriser lépp lu jëm ci wàllu suqaliku gi ci wàllu koom gi fii ci réew Sénégal lu soxal assise économique yi nga xam ne rek MEDES mi ngi koy amal moom Pape Demba ne ni nag dafa war a doon ab point de départ boo xam ne rek mooy lëkkale diggante secteur privé bi ak gouvernement bu Sénégal mu nekk entrepreneur du conseil économique expert en développement industriel Pape Demba Thiam ma ngay dellu suwaat nag di àddu jëmale ci situation politique bu doy waar bi nga xam ne rek moom la Sénégal nekkee ci jamono ji ci ab waxtaan wu am solo ay orientation yoo xam ne rek mi ngi koy jébbal kilifay Sénégal yër leen boobee yëglekaay beneenub yëglekaay bu xëyeekub entretien moom itam nag di waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne rek moom la këru liggéeykaay di la bokk na ci yéenekaay bi di l'Observateur moom tey jii nag xëy na dalal président bu CNES di aadama Lam moom mee nag ma ngay dellu siwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne rek war nañ caa gaaw wut caay saafara laataa këru liggéeyukaay yi tàbbi ci guuta ci biir yëglekaay boobee nag ma ngay xam ni entreprise ak entrepreneur yu bëri jamono ji nag ci njàqare la nekk bi nga xam ne rek moo leen topp boobaak léegi te lu ni mel bu dakkul mën naa jur ay perte d'emploi yoo xam ne rek dañu koy nemmeeku ci këru liggéeyukaay yi yéenekaay beneen mu di vox populi la ñuy àddu jëmale ak coow li nga xam ne rek am na ci diggante état bu Sénégal ak ñi nga xam ne rek ñoo di député yi ci national nationale yéenekaay bi ne secrétariat exécutif national bu APR nag ña ngay jàppale waa bureau bu assemblée nationale ña ngi leen di xamal ci biir yëglekaay bi ne ñoo ngi ci seen ginnaaw bu ñu dellu ginnaaw benn yoon ci xeex bi nga xam ne rek moom la ñu sumb groupe Benno Bokk Yaakaar leen di woo ngir ñu daal di dem nag seeti ji ñi nga xam ne rek ay non inscrits lañu ngir daat leen di boole ci seen xeex boobee ngir mën a am doole ba mën a jàkkaarloog état bu Sénégal Abdou Mbow mi nga xam ne rek mooy njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ne amut lenn loo xam ne rek ñu ngi koy négocier ci jamono ji ba noppi di xam ne ci biir yëglekaay bi ne li ñu war a def ci règlement intérieur bi nag daañu ko matal waaye bu kenn wax ne nag ay faux règlement intérieur moo am ci assemblée nationale pencu ndaw réew mi ab institution bu libre la Ousmane Sonko amut lenn loo xam ne rek mën nañu koo defloo mu ñu koy dindiloo wala mu am ay sañ-sañ yoo xam ne rek mën na koo def ca biir pencu ndaw réew ma dafa war a xam ne premier ministre la te faaw mu respecté li nga xam ne rek mooy charte ndey réew mi Amadou Ba di ab député Yewwi Askan ni waa groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar dañoo xotti war may loi de finance bi nga xam ne rek moom la ñu waroon a amal ci assemblée nationale te amul ci benn dëkk buy dox ci wàllu démocratie ak état de droit boo xam ne rek institution yi dañoo war di violer ay loi ci kaw ay kàddu yoo xam ne rek dañu koo dégg te ñu ne neexu lenn les ko yëglekaay ne fi mu toll nii nag ngir président de la république mu daal di tasaare assemblée nationale tax na ba jamono ji député yi bennoo bokk yaakaar yi nag daal di sóobu lool ci seen projet boobee nga xam ne rek moom la ñuy Sonko di amal yéene kaay bi ne gànnaay bi nga xam ne rek moom la doon jëfandikoo ci jamono bi muy nekk opposant moom Ousmane Sonko ba nëgëni si nag moom la woy di jëfandikoo ci yéene kaay bi nag ma ngay leeral taxawaay gi mu daan am ngir di defanteeg kii di théâtre ak discours bi nga xam ne rek yëkkati ko ci wàllu réduction des comptes ak kàddu yi nga xam ne rek yëkkati ko ca Colobane ak ca Anse Bernard ba mu fa demee dimanche ji ñu weesu yéenekaay bi di samp na ndax déplacement yooyee muy amal ak discours yi nga xam ne rek saa yu ko waxee nit ñëpp dar seen gémmiñ ndax lu ñu mel nag daf ko bëgg a lu jëm ci coow li nga xam ne rek moo judd ci wàllu déclaration politique générale bi nga xam théâtre ak visite bu mujj bi nga xam ne rek amale na ko ca Colobane ak ca Ange Bernard tax na ba yëglekaay bi di Walf Quotidien di dellu suwaat ci ni Ousmane Sonko di dundee ak ñii di ay militant om Sud Quotidien la àddu jëmale xëyee na tey ji nag ci ndoxteelu baccalauréat général bi nga xam ne rek tey ji lu toll ci 159 487 ñoo fas yéene sëgg ci boobee jongante ñu tàmbali niki tey ji nag talaata yemook ñaari fan ci weeru juillet fépp ci réewu centre d'examen yoo xam ne rek ñoom ndongo yi dinañ wut seen lijaasa bu njëkk bi leen di yóbbu ca université jeexalee xibaar yi ak wàllu tàggat yaram stade yëglekaay ak Copa America bi nag yéenekaay bi ma ngay xam ne nii fi mu toll nii Brésil ak ñii di waa Colombie nag ngay xëccoo première place bi sunu làmb Ama Baldé ginnaaw ndam li nga xam ne rek am na ko ci kaw Gris Bordeaux jamono ji nag ma ngay sàkku ñu jox ko avance ci digganteem ak Franc mbokk yi li gënoon a fës yëglekaay yi jàmm ak jàmm Sénélec société nationale bu Sénégal